ba mu feeñagul àdduna booba dunyaa lëndëm na ngir réer gi fi woon ak mooy yaa ñii topp wuur yi ñee di mooy di caaxaan nuuri ci mbon ba fàtte yàlla quraan góor ñaak jigéen ña maase topp ay sabar ak géewi làmb ñii di sàcc ñee njabar mag ñépp réer duñ sol lu dul ay carte di tuxaka naanaka doo carte seytaane tënk réew mi ñépp topp ko la yàlla yoonaloon ñu réer ba teggi ko waa kaw ñanaa bur yàlla noo ngi lay ñaan nga yónni mbër mu wàcc gindi soodaan yónnee ni yàlla la taxoon nga yónni ma lépp a ngi raaf yónnil ko wàcce wuutu ma bu ma sañoon nga tànn Ahmad Bamba yónni ko ngir moom rekk attan yan ba xibaar bëjib siiw lool ci gaay asamaan ngir tànn nañ kiy gindi aaxiru zaman wàlliw ya daan fanaani pays diiwaan ñoom it ñu yëg ko mbir ma def leen kii man Cheikh Omar Fuuti yu tal wàlliw ba ba mu ko yégee la jóg di wër bërëb ba yàllaa konoon kooka de réewum bàkkata lay feeñe moo tax mu doxoon ba màkkata buur ni ko déet bàkk tegee ca soowu bokkeewul ak gi penku nee fa coow booba la jóge màkka ñëw mbàkke bawal ci kër sëriñ Mahmadou sekk nag la dal buur ni ko dëkk bii nga ne ci at mii lay wax ci mbër mi war a gindi réew mii Cheikh Omar bàyyi fa ab dénkaane wax leen folol wax gënu koo kiimaane leer ga la gis moom Cheikh Omar Fuuti yu wër ko ba Mbàkke raw na kuy walliyu yu Cheikh Bamba feeñ baayam tuddee ko sëriñam bu daa ko jàngal Bamba sàll diw turam sëriñ Momar Anta Sële di baayam maam jaara mooy ndeyam di sët ci maaram ba mu matee dal lañ ko jox sëñ tafsir mbàkke ndumbe foofu la nekk ab diir ba mu fa jógee la dem ci sëñ mbusoobe aalim la woon réew mi padaa ko joobe ba mu jógee ca sëñ mbusoobe nag la dem ca way juróom ngir mottalee fa xam-xamam te booba baayam ma nga woon fa saalum mooy at yama ba doon dajak ay noonam ca foofa sax la ndey ja wàccee ab liggéey muy dem gu tiis waa réew ma ñépp doon ko jooy fanweeri at ak ñett rek la dund teewul mujj fi jëf ju ay tund Cheikh Bamba ba mu amee ci at la ñàkk ba ndey ja làqoo ba mu des feek baayam léppam la jël jébbal ko def ko waayam keroog ba baayam di tuxal njaboot ga wuti kajoor bàmbaa nga woon cawet ga xaadi bu mag la woon di àtteel Lat Joor wax nañu sax loolu ko yóbbu woon kajoor waaye mësul bëgg di dëkk ak ay buur moo tax mu randu sanc ak mbàkke kajoor mbàkke kajoor googa la Seex Bàmba ne woon di jàngalee kay jàng sàkkuwul lanin léeg-léeg mu gis xaadi ma jaxate kala gaaral ko ay way ngir mu xool ndax noona la léeg dem ca sunu maam borom saam nekk fa ab diir di fa gëstu mboolem fu noonu yëpp la pekk ci ak ndawam Cheikhul Xaddim kenn mu la natt xam-xamam Mbàkke Kajoor ba mu fa nee di jàngale mujj na ñëpp dem ca moom di yeggale mu teel a wuutu baay bolol ca daara ja ñëpp safoo ko wekkalool ngir ji ko jë ca yooya at la baay ba daal di faatu ñu ko déqale mu far ko wuutu moo doonu daara ja yoraale kër ga taxawul lépp daal di njaboot ga ca yooya fan la mag ñi ñoom Mbàkke Kajoor naa ko doonoo bëgg nga dem nekk ca buur Lat Joor ku baax la boo demee la nga far fa féete bàmba ni leen ci yàlla rek lay féete te du ma jug mukk di dem fu mu wute ñang naa ko lii xéewal la bul ko gantu am ci ñu naa baleen ko kii day font nit ñëpp dëddu ko mu jublu yàlla wéeru ca moom ànd ak jomam as gor la ba baay balaa xoon ak ba at ma siwaat ca la ko yónneen feeñu ràng koy garat booba la naa ko na nga yar sa donga yi ci yitte buñ yem rek ci jàng téere yi Cheikh Bamba xëy ni leen ku jàng kepp indi ci man wutil faneen foo jàpp ku bëgg a dox ci lii ma jublu nag ñëwal jokk ci man doy loo ma topp saa ndigal ña ëpp dem ñu ne wotoog toog aadama géey moo njëkk jébbalu keroog am na lu rëy woote na am at weesuwul fanweeri nit ba Ibra Fall ñëwee la ñeen fukk yamat ba mu jugee Mbàkke Kajoor kër baayam Mbàkke Bawol la wuti dëkku maamam booba murit ya tar na lool ci ñoom ngir daanañu leen dóor ak nangu seeni kër tàqale leen ak seen alal ak seeni doom nit ñëpp xeeb leen jaxasootuñu ak ñoom daanañu wax jeeg lu mu bon bon jur murit mbaab séer bi mbaa ab na ma dal amuñ mérite nit ñëpp xeeb leen defatuñ leen nawle ñu ni cundum te booba néew nañ doole ca yooya at la Bàmba gàddaay maam tuxu ca wet ga sañc fak Daaru Salaam keroog ba muy sanc ba woo waa ñoom ñëpp bañ naa ki wérul daa manqué sax na fa ab diir doora a sanc Touba bàyyee rakkam Seex Anta kër ga ak tool ba tuubaa la wàcce ñene woon ca daaraam def leen i seex ku nekk sanc daaroom sax na fa diir mbooloo ma ak raj-raj ja moo tax mu gàddaay ngeen ñoŋal diineem ja sëñ Mbàkke buusoo la fa bàyyi booba dem Mbàkke bari dekkilaat bërëb ba diir la fa am waaree ma ñëpp topp ko looloo toxoon bur ak sëriñ sa fiire ko ñoo dem ba ndar boole ko ak tubaab ya naa leen bu ngeen jugul mu nangu réew ya mbooloo la yor nguur la fi bëgg a taxawal bis dana xëy songu si leen ba leen ko xel tubaab yi xëy jox bàmba ab bataaxal ni ko ñëwal wuy suñu doonu jaaxal bàmba ni leen aw ma ndigal fa saa borom kon mënumaa ñëw du ma déglu saa morom ruuxalekat ya dellu naa leen lu ñu waxoon du wuy si mukk am na fit faalewu leen ruuxalekat bu mag ba xam nañu turam waaye jërul wax nañ ci sédd ay sëtam tubaab yi yónnee nañ fa ay bataaxal yu mu lool ñëwul mu far leen jaaxal Cheikh Bamba xëy jox ab bataaxal Thierno ni ko demal ndar jox ko seen gouverneur maam Thierno dem ndar waaye daata muy ñëw fekk na sëñ ba jekk waaj moom ba taxaw ba mu ñëwee bay wax la Bamba naa ko maam Thierno noppi lépp dégg naa ko am naa ndigal ci yàlla ak rasuulu toog leen ba dem wuji ñi ñëpp yu móolu tàggu njabootam gépp jël loxoom ya teg ko ci faloog Moustapha doomam ya naa dénk naa leen yàlla ak rasuulu ak Thierno mi ma wóolu nit ña di jooy mu gëddu war fasam wa ñëpp taxaw mu génn topp yoon wa bàmba di dem noon ya di ñëw fa jeewal la ñu dajee armée bu rëy lañ teewal jaar nañu kokki Louga lañ yéegee saxaar ngir wuti ndar bis la bu tiis na war tubaab ba jël nañ ko te mosuñoo jël ku del siwaat maa la ko wax te gësu jil ñoo song sun maam Cheikh Omar Fuutiyu Taal Ahmadou Cheikhu ñoo ko war rey ko ca teel Maba Jaxoog Mouhamadou Daraame ñoo leen rayoon rayoon wu ñaaw te yéeme bul fàtte Fodé Kaba ngir tubaab ba ñoo ko reyoon xëy song Cheikhu Bamba jël nañ ko yóbbu ndar mu dëddu waa këram sax na fa ay fan waxagun ci ay mbiram bés bañ ko ne kaay wuy si tey biroom ndar keroog ba muy dem ahlu badri ñoo ko dar daa dugg rek dummóoyu jublu màkka sànni deram julli fa ñaari rakka tubaab ya naa ko koma sëriñ ba naa leen yàllaa ma bind yéen itam mu bind leen mu wax ma def yéen wax na leen ngeen lànk noppali leen xam ne du ngeen ma sànk tubaab ya naa ko kaay siñe mu jël bigam siñe fa allahu ahad ñëpp wedam ca la ñu mer génn ko yóbbu ko Dakar waajal fa néeg bu tiis tatar mu koy xaar ba mu ko jubee lañ summi dàll yam soloon laqati kaalaam nangu téere yam yoroon bu ma ko tëj ko ba ko faak tàngoor wa lëndam nga xet ga daan di muñ mettit wa te suuf ga kat def nañ fa rab yuy jamee mu di ko jam wallahi bamba moo ñimee sax na fa ñaari fan sëggul si géetul ngir néeg bu xat gisul xarit mbab wéttal luy xeeti lor ak xeeti tiis daj na ko ndar daj ko Dakar te fam jëmaat mooy gën a tar tooñ nañu siñ bi jël ko génne réewam yóbbu gabon bëgg ñu fàtteem riiram ba mu demee ña ngi ko dalal ci àll bopp kenn mënu laa wax la fa am ci xeeti rab te rab ya kat yor nañ dangar joo xam ni kuñ màtt rek nga faatu gaay sànni fa lañ ko ko loolu te teew sant bis sox ay fital ahlu badar lañ mujj gis noon yaa nga tiit daw naa ko bàmba ndekete am na ñu lay garde di boof ci sa côté gabon ci mbedd la dëkkoon amul néeg mbaar la fa def buy bind foofu lay toog ba am na bis muy taw te moom ca mbedd ya mu dem ca kër ya ñaan fanaan ngir téere ya kër gam duggoon booba ci aw waañ lañ ko fat ka ko fatoon woo nañ ko tëj ko ci am at sax na fa ñaari at fa lañ ko tuxale yóbbu ko maa yomba ci kaw yu tappale juróomi at yu mat la am maa yomba taroon na lool lu ne la daj ca dun ba tefes gi lañ ko bàyyi woon duggul ci kër joxuñ ko néeg lu ne la daj ci aw naqar mettit ya ak tartar ya teewul lam fa way booba ba tey gisuñ ko bind lu nu doy lam fa jëfal yàlla ak rasuulullaahi ak lam fa daj kenn du ko daj billaahi ba muy liggéey booba sëriñ siñuy coow lu leen musal ñoo seen njaboot ga la ñu siiw ba muy liggéey booba sëriñ siñuy coow ñoo ngi ci réew mi dog yàpp ak sipp soow tey ji la neex ku nekk def ko nawle ba muy liggéey ñoom ñëpp toog di xoole da leen raw man leen te moo leen gën a gëm lee tax mu am cër boobu ci ñoom kenn du ko am ba mu amee juróomi at maa yomba lisaanu xaal mag naa ko seexu bàmba am nga ngërëm ci yàlla ak rasuulu dellul sa réew fenk nga dootoo suulu booba la wàcc tubaab yi def ko ci gaal tàbbal ko géej muy fee bee si Sénégal dakaar la wàcc réew mi ñëpp maare murit yi beeg ba mel na ñuy xawaare jaar na ci ay bërëb ba dem Daaru Salaam Seex Anta sargal ko mu sax ab diir fa moom ba mu fa jógee la wuti daarul man naan murit ya daal ko xam ne raw na ndaanaan booba njabootam gépp daarul man naan lañ féete woon ceerno di leen jox ñu naan wax nañ ne ñetti at la am ca kër ga fër kër ga lakk mu goraat ci wet ga weer ki fan rek la fa am dem tuxuwaat daarul man naan ngir donga yaa ko sanciwaat bis nag la woo Cheikh Ibra Fall jox ko ndigal mook Ibra Saar ak Samba Diop ñu wuti lal talal ya ña ngi ko doon jëlee ndar booba te ko ci ay gileem mu jëm ci siñ ba lal yooyu nag la noon ya gis dem boole ko daat ni dafay waajal jihaat gis nañu ko mu jënd ay ngànnaay di waajal ab xeex mook aw nitam jug leen ca moom jëlul yeex looloo taxoon ñu yóbbu sëñ bi gànnaar ca biir sërif ya ca tubaaba doy waar ngir ñanganaa bu jaxasoog sërif ya danañ ko mëdd suul ko jël dongoom ya juróomi at sax na ko réewum gànnaar delsi ci réew mi mel ni jantum jolloor dem na cee yéen soxna fa ñoom juróomi at mayam yi yéem ñëpp ku nekku ko bët cee yéen la seex bàmba tuxoo dem njaaréem murit ya dar ko fu mu aw ñu ko yéem soxna fa njaaréem fukki at yu teg juróom buur yàlla jël àdduna jébbal ko mu moom man la kani duniyaa wa uxraa bàmba moo ko waxoon du waxi sàmba ak demba man la kanil xuraana bàmba nee na yàlla mu moom loo alxuraan te wér na biyatallaqa alladina aslamu min jinni asri duna man lam yuslimu Seex Bàmba ne jinne yi woon ci jamonoom ña cee jullit ñoom ñëpp ñëw jokk ci moom nee na nosu mbindeef yi ci loxoom la ne zimaamu gee ca xaddimat loolu lay wane njaarim la Bàmba yëkkatee diina taxaw sampuy kenoom turu borom bi jib ca kaw waa réew mi ñëpp fàq dem jëbbalu ji mu génn leen fu ne mu tas fa diina ji sàkk na ay mbër ñamu sàkk sàkk yeneen ni mbër Bàmba du cof day sàkk kajoor di ñëw saalum di ñëw banaar ya sax daanañ fi ñëw muy jël alal di ko jox waa Makka it daanañ ko bind leetar ak di fa ñëw moo tax ku ñuul am tiitër buur ya di ñëw dag ya di ñëw di jokk seytaane mer diina di ree bakkeeku buur ya ko doon ruuxale ak ay noonam ñoom ñëpp mujj ñëw di raam nii jaamam tubaab ya sax léegi-léegi daan nañ ko dikkal ñëw boobu fa moom di lee ba koy sàkku ndimbal téeméeri junni ngurdu jox na leen ko bis matoon na bit seen réew mi ñeenti yoon yu des foofa ca njaareem la defoon jumaa juré te taaru lool waa mi ñu ngi koy yëm ba tey njaareem këram la wuyu jee boroomam ñu yóbbu Touba yàgg nay moomeelam sëñ Mbàkke Buuso moo ko jullee boobaa murit ya sargal ko mu ñibbi Touba Cheikh Moustapha Taba ko jëkk a wuutu gannaaw ba nag Cheikh Fallou moo ca bootu bañ fi jógee Cheikh Abdoulaat seen rakk moo fi newoon jëfi lu kenn dul sikk ba mu fi jógee Cheikh Abdou Khadir Mbàkke moo fi ne woon tas na ci réew mi barke Cheikh Saalihu njabootu Cheikhu Bamba moo fi desoon mu mujj tooge jalba ba mu fi jógee Cheikh Baara Fallou doon ko sëñ Baara dem Cheikh Sidi Muxtaar wuutu ko